leen yilifee yàlla dénk la ngay njiitu réew ma yàlla dafa wax ni boo bëggee ma def la seen ay xol fexeel ba am yërmande ci ñoom bis boo amee yërmande ci ñoom may jël seen xol yëpp fexe ñu bëgg la waaye boo amul yërmande ci ñoom boo doon fere ay milliards du ñu bëgg la law an faxta maa fi l ardi jamian ma allafta bayna xulubihim walakin allaha allafa baynahum mooy ki jiite réew mi yàlla wax ak opposition bi ni leen bu fekkee ni am na lu ngeen bëgg te muy dëgg ci yéen fexe leen ba ànd ba ngeen ni ànd te muy dëgg ci yéen bu ci war am ndax yàlla nee na bu ci war amee dinaa fexe ba tasaare ànd bi ngeen di ànd ba li ngeen di bëgg du ngeen ko am ndax fa inna laaha naka yàlla laa yëx di du jubal mukk kay dal xaa inin pexe warkat benn bi ma ciy daanelee te nga wax ko sànq sunu yaay ajaratu maam jaara wax ko dafa naqari sama xol ba ba émission bi euh, bëggatuma ci dara mooy sëtu cheikhul xaddim maamam liggéey lu bari ci réew mi nga xam ne bu duloon teg maamam lu bari dina ndërmeelu mu muñ lu bari jaar fu nekk ma dégg baat bi mu wax sànq ci néeg bu nu ko dugal en tant que néegu sëtu Cheikhul Khadim fa nu ko def ñamu bokkal néeg nañu xam ni ki ñu bokkal néeg du nit ordinaire Cheikh Cheikhul Khadim mooy maamam beneen bi ci des mooy euh, garde yi nga xamante ni ñoo koy xool mu ngi wax sànq wàllu na nañu xam ni al martabatu laatu saameh martaba baale de mën nañ ko jàpp en tant que politicien Cheikh Abdou Bara Dolly mën nañ ko jàpp mën nañ ko jàpp en tant que politicien waaye nañu bàyyi xel ni surtout Cheikhul Khadim te martabay maamam du baale maa ngi ñaan maa ngi ñaan maa ngi ñaan bu baax a baax sunu maam Serigne Mountakha ak mag ñu baax ñi nañu ci dox ñu génne ko ndax Cheikhul Khadim mooy maamam bi ci des ñu daal di dem ci xar yi nga xamante ni euh, kenn waru ko di tabaskee ndax buñ génne yooyu ah wax ji mu kenn àndu ci xam nga wax ji moom neexul a ànd. da nga da koy waxaale rek. waxal yëpp boole lépp ne ak li mu wax nii. Cheikh Omar am na wax joo xamante ni ne aussi. waroo ko wax. Cheikh Omar Cheikh Omar. waaw kilifa buñ koy déglu. mu sol yére bu rafet lool. bis bu waxee wax bu demeewu noonu. ñaawal na yére bi mu sol tilimal na fa mu bokk. waaye est-ce que xam nga ni yàlla opposant bi mu am. bu ko neexoon mu rey ko ndax moo ko bind muy seytaane. te muy yàlla benn opposant la am muy seytaane. te dafa taxaw jàkkaarloo ak yàlla ni ko afa bi ma axwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim suma la atiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wala tajidu aksarahum shakirin yow yaa ma génne aljana ndax maam aadama fii laay taxaw yow yàlla nag képp ko nar a dem àjjana dinaa ko dévier dinaa fexe ba def leen ay ingérants bis bi mu ko waxee yàlla te muy opposant yàlla yàlla mënoon na ko rey ndax mu ni ko ba leen safara yàlla ni ko may naa la ko waaye ba mu des nag gaa ñi nga xam ni préparé naa oustaz waaye tamit euh, bi muy bi muy yónni Moussa ci Firawun lan la ko waxoon dafa ne ko booy dem ci moom demal respect ndax kilifa ak yar ak demal ci yar wax naa la nguur ku ko bëgg te yar woo doo ko jël nenne ak ko mën a doon nguur ku ko bëgg a jël ku ko bëgg a jël bil amali tastil lil jinaani wa bil adabi daal jéggale jëlale jéggale jëlale bàyyi sell jëlale li wér te wóor jot nañu ko téye ba pare ba pare xoolaat wax yi ndax léegi nit ñi waxatuñu dëgg li ñuy xoox mooy wax ngir am ay vues dégg nga vues yi dafa am xaalis déggoo ma de non vues yi dafa am xaalis waa waa mais mais Omar Faye Omar Faye foofu moom man maa lay tontu Omar Faye même rek foofu maa lay tontu parce que fii da nga comprendre que ni léegi man par exemple aw ma YouTube bu am naa YouTube mais nit ci sama ci sama ci sama tur rek créer na ci YouTube maam jaara faam boo xam ne damaa xëy suba teel rek ñu bind ci maam jaara faam ci YouTube bi te moomu ma ko parce que tout simplement boo ciy dugal vues yi saaga ñi ciy fay nit. yaa maam jaara xamoo ni kuy saaga lay fay saaga kat yi nga gis ci internet bi moom la ñëpp di gën di seetaan. te bu ñu leen di seetaan. Uh, YouTube dañ leen di fay maanaam jikko ji yàqu yooyu noonu moom nga bëgg a wax que ni xëy na waxin wi moo jaaduwul man d'accorduma mhm. ci kilifa taxaw wax yenn wax yi dama laa wax sànq ni la Abdou Mbacke Baara Dolli moo gën ba gën kam warta gën ci xolu baax xolam laa xam te gis nga nga tëj ko ci tabaski gii mhm. di xañ lu mu gàtt gàtt fukki nit laa wax de yoo xam ne seen xaru tabaski moo leen ko amee te ma loxo Macky Sall du fa yegg lu mu bon bon laa wax waaye noo seulement li mu wax man maam jaara faam mii toog laa wax di magam di yaayam muy sama sëriñ mën naa ni ànduma ci ni ci baayam ñàkkee ànd waaye nit da nga koy rusa nit. nee ay Aïcha nit dañ koy rusa nit. léegi Moodu Baara Dooli Mbàkke moom ak Abdou Mbàkke ñoo bokk benn baay. di politigal Macky Sall ba anta na mën a toog weer ba weer yu dellu si te du doon teg Abdou Mbàkke waaye rakkam la deret dafa fort. bi mu ko jàppee dafa taxaw ni Macky Sall maa ngi lay jéggulu nga baal sama rakk ji. baayam taxaw ni nga baal ko. bu sëñ Bara Dolly taxawee di ñaan Macky Sall te mayu ko mooy il a réduit le le le le le le le marabout à la muy mim ci sëñ Babacar Sy Mansour ki dem moom la def ci Abdou Bakr Dolly loolu maak continue euh, yow mii jënd xaru tabaski. waaw la xel xar yi ma lay wax ni la bul ko jënd yaay maam jaara ki nga xam ni mooy jënde xaru tabaski. Mhm. na bàyyi xel ni xar yi bu mu ci jënd mën naa am ndawal te du am tabaski. booy jëndi xar nanga xool ba xam bët ba patt na wala pattul ndax xar bu bët bi pattee matul tabaski mm-hmm. xar bi ngay jënd lu mu duuf duuf ci kaw xoolal geen gi un tiers bi bu daggee matul tabaski mm-hmm. xoolal nopp yi bu nopp bi daggee un matul tabaski mm-hmm. xoolal xar mi ñu bës ko mu ni mbee bu fekkee ni xar dafay muuma bu fekkee ni dafa muuma matul tabaski xoolal ni muy sooxee bu fekkee ni soox bu fés la bu jiitleeg ay moroomu xaram xaram yi rawee ko lu bari ndax sooxam dafa fés lool matul tabaski xar bi nga xam ni béjjënam dafa damm ñaar nag am na ci werante bi nga xam ni béjjënam damm na ba wér maa ngi ci waxtaan ak imam Mansour Seck nga xam ni ku yàlla baaxal la mu ne ma bu béjjën bi wéree mat na tabaski waaye bu fekkee ni wérul deret jàng ci matul tabaski xar bu gémmeñam dee xeeñ yàlla nag fa ngay xamee ni dafa yéeme nee na li nit mënal boppam yàlla daf ko ci seetaan. mais muuma bi moo ma jaaxal. waaw xar day muuma. xar day muuma. xar bu muuma amatul tabaski. noo koy xamee. da an kay. du wax mbee. du wax du mën a wax mbee. damay bañ a xam nga xale yi léegi li euh, euh, dañuy xëy rek. tiktok la damay bañ wax façon mbéyam fii ñu boole ma ci seen i ay salans. loolu laa bëggoon nga wax. waaw loolu nag laay bañ ndax xam naa xale yi. mu am kaa daal rek parce que tamit. nga jàngale euh, oustaz yow yaa wax nga xar bu nu ni mbee tubaar xam naa ne ne loolu la ci bëggoon ah danaan wuu mbee bi mbee bi du set comme mbee bokk la xar mu suur nga xam danaan mbee xam nga tey euh, formous bu naan may mama jàll bokkul ak may ma mama jàll oustaz Mouhamed Mbaye wala sukki wala waaw nit ku ne ni nga toll noonu ngay waxee tey wax naa la ko démb man la comme ça bu doon xaru tabaski bu mel leen ni aas di nga ko mën a tabaskee <laughs> waaye bu fekkee ne xaru tabaski mën na yooyu ñu mën ko tabaskee as moom bu doon xar rey mu dee reyal mu dee waaw mais xam nga mën nañ tabaskee mooy bi yooyu ba mënta taxaw formose moom bali bali lay moom bali bali lay doon <laughs> xar bu fekkee ne yooyu na ba mënta taxaw kenn mënu koo tabaskee su melee ni aas waaw bu melee aas mais bu fekkee ni beneen bi ci topp balaa ngay jënd xaru tabaski na romb juróom benn weer